lii du débat lii du débat bu dee dëgg la nag information yi alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah encore une fois jàpp nañ leen bàyyi nañ leen woo nañ leen liberté provisoire du débat li ngeen war a def moom ngeen deful dem leen Turquie ngeen xool la Sénégalais yi di dund ngeen xool seen ndawal réew yi la dund ci dëkku arabe yi yéen yi ngeen di roy tubaab yi ngeen di roy dem leen France ngeen xool li français yi di yekk Macron te dara du leen ci fekk parce que ci pays démocratie la nekk. dem leen Italie ngeen xool italiens yi li ñuy yàq seen njiit yi te dara du leen ci fekk nga ñëw Sénégal boo commentaire ñu jëli la. président est ndox mi nga naan eau minérale la. section de recherche Diop ñu woolu la jël say téléphone palpé déglu ñii luñ def bañ leen di woo xanaa xanaa ku def la ñuy jëli la ñuy la ñuy la ñuy libéré ñii lan lañ def bañ ni di libéré wala ànd ak Sonko délit la.